ko waxee open press fils de Baala xam ngeen ko Boucher Ketchup seen xarit seen mbar <laughs> seen sinapeur seen fans mais jaar naa la. mais Mbaye Diop mon ami yaa ngi liggéey nag. ah Bour Gueweul TV yóbbu ko fu sori. ndeysaan xam nga Bour TV nag bi mu ñëwee yàggul. waaw mënoon na raam ba kanam mais instant yi daa sauté. daa tëb ay barrage da nga ñàkk ki ñaan sama xarit parce que liggéey bu rafet ngay liggéey. doo yàq nit doo wax lu ñaaw. lu baax rek ngay wax lu baax rek ngay wane. loolu moo tax nit ñi bëgg la. kër kilifa bu ma dem fekk la fa dañuy téye ay site internet bari mais yow lañ lay dugal. moo koy def. yow sa xol moo rafet tey ngeen ñëw gunge si seen rak seen xarit. waaw Fils de Balla. waaw ndam incha allah ndam. ndam géejawaay defet bi baax na. góor a soog ngeen am taxawal wax ak man góor la man maa la ko wax Ketchup góor a doo dara benn song nga am mooy pakete waaye boo paketee xam ni booy bi dalay dina la pusulu ba nga yaakaar ni lamb ay dëxin la. nee na du bëre du xeex. moom moo dul bëre moo dul xeex moom. mais combat bi ngeen jóge barki démb Ketchup lu xew coow li bari na après combat bi. waaw ndama ndama mel noonu. su su gaynde gi jógee ñëppay jóg. waaw champion bi moo jóg. Sénégal yëngu. waaw ñu gis diggante Ketchup ak Balla Gaye Ketchup jël engagement. waaw jëlaguma sax engagement démb la waaye yàlla yàlla baax na nañ seetaan daf ñu dafa am liggéey bu liggéey bu ñu dëgmal foog ñu pare ko ba pare ñu soo ko wax mënuñoo wax fi mu nekk mais dañu gis combat bi danga ko jël o sérieux jëlal ko sa bopp yii di ñëw mooy raw incha allah yii di ñëw mooy raw mooy raw waaw àggagun ci ñu ne le premier janvier booy ñaa ñëpp ne boobu du demeek bii du bokk ak bii bu premier janvier incha allah rabbi boobooy gën a yomb bi waa Pikine n na li tax ngeen jaari fa bu doon ñoom la kon kenn waxatu ko bu bu le premier janvier. combat boobu incha allahu rabbi bu neexee yàlla ak bi. mooy gën a yomb combat bu Balla mos a bëri. ndax lan. doole la fay indi fit ak jom ak xam-xam ak wane du ma sa morom. waaye Ketchup ba ngi noonu waaye buuse. <laughs>